sunu mbokk yi nga xam ne ay boroomi xam-xam lañu dañoo jàngi woon xam-xamu àddina ak sunu mbokku taskatu xabaar yi seen responsabilité seen responsabilité nañu ko assumer te jaamu ci yàlla comme ni ñu waxee ne noon la nguur gi amee responsabilité ci jagal pénc taskatu xabaar yi noonu lañu amee responsabilité ci xamal nit ñi lépp lu leen di lor ak lu leen di jëriñ rawatina ña ca nekk ay jullit li ma bëgg a wax mooy muy projet Akon boobu bare na ñu ci xam loo xam ne leer na leen ne lii du baax ci réew mi waaye bugguñu ci wax lu tax bugguñu ci wax parce que waa ji borom alal la parce que ñi nekk ci gannaawam parce que seeni kilifa yi leen yilif waxaguñu leen ñoom ban direction lañu war a jaar seen kilifa yi leen di yilif ci wàllu presse waxaguñu bañ position la am ci projet Akon bi moo tax ñu ne tekk mel ni ku ci xamul dara parce que li xel mënul nangu mooy nit moo mënul am am réew ci biir am réew loolu xel da ko nanguwul loolu jaaduwul loolu état bu normal du ko nangu sax te léegi parce que kii américain la moo tax moom projet am kenn du ci wax parce que moom dafa lëngoog ay faramason moo tax moom projet kenn du ci wax parce que am na boroomi milliardaires yu nekk ci ginnaawam kooku projet am boobu débat la waroon a doon ci Sénégal boroom xam-xam yépp ci waroon a génn di ci wax ñu xam projet bii ñetti junniy milliards moom fan la ko war a jëlee d'abord gaa amu ko ñan ñoo ko financé ba mu am ñetti junniy milliards yu muy tabaxee ab dëkk dëkk boobu ñoom lu tax ñu taamu seen monnaie bopp lu tax mais loolu ay question la lu tax ñoom ñu nekk biir Sénégal ba pare soxla seen monnaie bopp loolu pour lan la lan la ñu namm lu tax bëgguñu ñëw weccoo ak ñun xaalis bu ñu yor lan moo tax ñu bëgg ut seen aéroport bopp te seen diggante ak aéroport bi jege bu bëgg a dee lan lañu ñu namm lu tax seen hôpital yi bopp lu tax seen hôtel yi bopp lu tax seen école seen léppi bopp dañu ko ber ci biir réew mi lu tax mais loolu ay question la mais loolu dafa war a leer balaa projet bi di samp parce que nous xamne, ñi la xam Nous ñi la xam ñëpp ñi la xamé amul ku ci am amul ku ci am jikko ju nous ay goor jigen lañu la xamé ay lesben lañu la xamé ay lañu la xamé koku bu ci dëkku di investir ab dëkk bu am indépendance dañu projet la presse bu neexon presse bi affaire bi débat ñom ñoko tay ñu parce que yalla mo may journaliste yi ñu jàng xam-xam boo xam ne lu ñu bëgg mu nekk événement mu nekk événement lu ñu bëggul mu nekk événement lu mu rëy rëy mën nañu fexe ba du nekk événement loolu ci ñoom la des benn picc bu naaw dal ci benn oto rek bu leen neexoon léegi mu nekk événement national ñëpp di ko coow su leen neexoon catastrophe bu rëy am te kenn du ci wax parce que ñoom la yàlla dénkaale waxukaay yooyu malheureusement dégguñu sax lu tax ñu dénk leen ko parce que sauver askan bi moo leen tax a jóg ba lépp luy yàqu ñoom ñu gàttandu ko xam ko informer nit ñi waaye kenn waxu ci te ay baykat ñi ngi loru ci projet boobu moom nee na mu ñëwee dafay def ay toolu mbay fekk ay baykat yuy bay nga nangu seen suuf parce que yow ay milliards yu bare nga indi ci réew mi mais loolu mbaa du dem ba léegi ñàkk rek ñàkk ci boppam tooñaange la mooy yow boo ñàkkee ku am fu mu la fekk mën na la toxal loolu c'est normal ku am na dem ca àll bu kenn dëkkul ku fekk baadoo du wax baadool ku fekk ñi néew doole dëkk ba noppi suuf ba nu dëkkee lu mu baax baax ak loo bare bare milliard nga dikk fekk ñoom ñu dëkk ba pare boo bëggee suuf dañu lay yóbbu ca àll ba fu kenn dëkkul parce que yow am nga moyen am avion am nga moyen am oto am nga moyen am sax ay drone nañ lay yóbbu fu sori ca àll ba nga wéet fa te nga bàyyi suufu baykat yi nii nangu te waa mboojeen dañu nangu seen suuf bu bare na ñenn ñaa ngi wax waaye kenn dékku leen micro moo tax kenn déggu leen am na ñuy wax de am na ñuy kaas kenn dékku leen micro gis naa ci baykat yoo xam ne nangu nañ seen tool dañoo àbbu feneen fu ñu boqatu di bay pour ñu dunde waaye mënuñu wax parce que amuñu kàddu amuñu kàddu bu ñu leen dékkul micro rek kenn xamu leen ci àddina fii kenn rek la ñuy lor ñépp yëg ko mooy ko am kàddu mbaa nga am alal bu la yàlla nattoo amula kàddu amuloo alal dëkk ca àll ba kenn xamu dañu lay lor rek ba nga faatu te kenn du ko yëg moo tax projet la boo xam ne ku yàlla dénk xam-xam nga mën ci gëstu gëstul nga jaamu ci yàlla informer nit ñi liy xew ñu taxaw ba loolu du am ab dëkk bu am indépendance boo xam ne ñenu fay indi ay moykatu yàlla rek la leen xame parce que xam nañu la ñuy liggéey ca Amérique fi ñu ko doon xaar ci Sénégal mooy mu ñëw investir ci réew mi luy tax ndox yi taay yi dootu fi amati bokk ak nit ñi fii jafe-jafe yi ñuy dund ñu xam ne kii ku bëgg Sénégal ñu naan woy sénégalais la patriote la dafa bëgg réew mi boo bëggee réew mi doo ñëw investir ci réew mi jël ci xaalisu réew mi jaxasoo nit ñi dimbali leen waaye nangu seen suuf beru war a woo ñeneeni milliardaire ñu dëkk fa ak yow moom lan la leen di jaayee suuf bi ci ban xaalis la koy jaayee ak ñaata la koy jaayee ak ñooñu ñooy ñan ak ñooñu ban influence la ñuy def ci suñu diine ak suñu jikko loolu bu doon réew mu normal kenn ñemewul teg premier pierre te question yooyu leerul malheureusement ñun di ñu nax te nax bi dafa doy nag léegi yeewu dafa jot nit ñi nit ñi yeewu nañu xanaa ni buggul yeewu rek waaye ku bëgg a yeewu di nga yeewu yàlla bindee nii àddina ku ñu naxati dafa fekk rek nga sàggan dana nu def lu leen neex ci doole nag waaye yàlla gëmmul nelawul te lu fi waaye def daanu ko rek la waat wal tanzur nafsun maa qaddamat li gadin wa inna allaha xabirum bi ma ta